Siré même si la commission d'enquête parlementaire li muy def amul benn incidence directe sur le processus électoral nee naa la conseil constitutionnel bi mu génnee la liste des candidats de manière définitive y a pas de recours mais voilà utiliser nañ prox ndool boobu maintenant te euh, maintenant ici euh, vous parlez de jeu d'enjeu Macky moo jël jeu bi ñun bi ñu nekk xale daa am benn jeu bu tudd na ma xooñ ñiy dem cinéma Vox xam nañ ko xam nga la mooy nabaxooj waa ji day teg ñetti carte ñeenti carte mais day am toujours en complice bu nekk a côté naa la bi gañ bi perte mélanger carte yi daal la koy dëppal Macky tey moo yore carte yooyu mélanger carte yi mélanger le jeu et puis aujourd'hui bu njëkk ba on parlait d'inclusif ñi war a bokk yépp lañ bokk aujourd'hui Macky utilise inclusif ba pare il appelle au dialogue ça veut dire venez à la table du dialogue on va discuter discuter de quoi il a reporté les élections discuter ci problème yi am ndax opposition bi problème bi moom la le seul problème du Sénégal de la démocratie sénégalaise c'est Macky Sall premier problème démocratie Sénégal Macky Sall Thione Seck nee loo ayee njëkkee woo ko te doo ci mujj na ay bi rafet Abdou Diouf da jóge na fi Abdoulaye Wade da jóge na fi Senghor da jóge na fi kenn aju fi élection Macky ko fa aj su ko ñu nekkaat ci benn coow dialogue bi dégg nañu déjà kenn ku taxaw. ci ne du ma du ma du ma dem. mais ñi bëgg a dialoguer. waaw en fait euh, bëgg a dialoguer xanaa du ñu tënk réew mi ci bëgg a xanaa. mag yi nag day yónnee parce que waxtaanee ko. <laughs> pour ñëpp ñëw. ndax ñemewu ñu waxtaanee ko ñemewu ñëw bañ a dialoguer xanaa. il faut ñu waxtaanee problème bi am ci réew mi. pour dem élection. way il faut ñu waxtaanee ko. waaw léegi dama ne. mais yow yow war a dem te ñu war a ñu war a dem ci dialogue bu ñu taxawee ne demuñ. loolu nag dégg xanaa da leen di forcer ñu ñëw. parce que dialogue boobu daa war am. xam nga loolu dégg ma sànq nag bu amee. kilifa gi sànq dégg nañ fi Anta Babacar Ngom mu ne dew ma si dialogue. Ah, moo tax ma ne la sànq balaa ñuy commencé dégg naa ko te yeneen formation politique waa xaaral mais candidate la. waaw waaw mais am na ñeneen ñu koy dem. Euh, boo demul ñu euh, sa moroom dem. Euh, Babacar ci candidat yi la c'est-à-dire bokk na ci ñi nga xam ne dañaa war a yëkkati seen baat dañoo war a wax tey bu ñu doon wax am na sañ-sañ taxaw ne damay wax ndax waa mais man bu ma wax ay recalé dama lay wax ñii nga xamante ne wuy ma dama lay wax nga xamante ne dañoo dem wuri seeni i ñëw toog ñu nangul leen ko mm-hmm. ne ñii dañoo bokk kooku bu taxawee ne dew ma te mu bokkoon ci vingt yi ñi tànn ne dañuy dem ci élection kooku laa wax ne ne bu wa bu bu demul nan ngeen di def ba baatam mën a compter ci waxtaan boobu personne n'est indispensable moom bu demul ay moromam dem moom rek du candidat am na ci am na non si am na ci am na ci ay candidat yoo xam ne dañ leen a recalé am na ci ay parti opposition yoo xam ne pare nañ pour ñëw dialogue du ma tudd seen i tur waxuma recalé yi mais bés bu ñu wootee dialogue di nga ñëwaat fii ne la aram maa la waxoon ne woote nañ dialogue parti politique yëpp dinañ toog ñu waxtaane problème mu réew yi maa la wax li Hmm. les vingt laay wax man man ba tey ñëwaguma si si si yi man ci vingt yi laay wax c'est-à-dire ñi war a dem ñi war a dem tey dañoo def table rase ne neenal nañ maanaam ku ci amoon wàlla ku ñëwoon am avance ci course bi wala dara yàgg ñëpp a yem. ñoom ñëpp a wax loolu. dama ne looloo am ci président li mu neenal processus bi ku dem euh, parrainage ñu validé la ku ñu validé wul yu ñëpp a yem. parce que bu ñëpp ñëwee toog parce que processus bi arrêté nañ ko waaw mais loolu moo wax ne foofu laay ah, ko ñamale ak kenn justice a été biaisée. Mmh. Mmh. c'est ça le problème. Mm-hmm. le Sénégal n'est pas un château de cartes Babacar. mais mm-hmm. xamante bu ñu tëlee rek ñu ne lépp lii na. Mm-hmm. non c'est xanaa war na am lu ñu lu ñu prévoir teg ko pour den lii bu situation bi taxawee dinañ am beneen solution. réew mi dafa neexula wax dëgg aussi dangay gis dëgg ne non lii du dëgg quoi bëgg koo maquiller defaraat ko. looy dëgg ji fii. mais dëgg gi mooy problème dafa am Pape Ousmane. man ba léegi nañu may wax li nga wax du benn nan la ñu mën a écarter Karim Wade ne dafa am double nationalité. tey la leen Karim Wade ñor. nañu waxante dëgg 2019 Karim Wade ak ñoom seen ay mbiram waxoo leen ko tey la leen. ci yeneen candidat yi ñu gis koo xam ne validé nañ ko mu am beneen nationalité. Hmm. ñu ne opposition bi wax ne il y cent mille électeurs yoo xam ne nekkuñ ci fichier bi conseil constitutionnel ak yeneen ak yeneen ngeen bëgg ñu dem ci élection nii mais loolu mënta nekk c'est pas possible. mais d'ailleurs d'ailleurs foofu laa koy bëgg interpeller xam nga li nga wax ni hmm. même à supposer bu fekkoon mu nekk na est-ce qu'il n'y a et non pas parce que problème day am ci adduna àdduna fu ne day am c'est que doomu aadama ñu am problème sama ak les institutions mais quand il y a une défaillance dans les institutions est-ce qu'on passe directement à l'annulation mais Sénégal est-ce ne fait pas une euh, deuxièmement il y a ce qu'on appelle les décisions ou les conséquences économiques d'une décision politique. Euh, je donne exemple, ante Babacar Ngom, dont je connais le père. À ce jour, avant une élection, il était en terme de dépenses autour de 300 400 millions te dama bañee maintenant léegi euh, kan moo koy fay loolu kan moo koy rembourser par benn décision bëgg-bëgg président Macky Sall moo tax ñoom les candidats les vingt ñu porter plainte état du Sénégal préjudice subi oui état du Sénégal pour préjudice subi parce que dañu war a dem élection ñoom ils ont engagé des dépenses recruter des cabinets faire des communications flyers ñenn ñi ñi ngi ci et cetera ñu ñëw ba fii par la seule volonté du chef de l'état d'un homme et contre le calendrier républicain ñu ajal leen yooyu nulal leen ko donc ñoom ils ont droit si on étant toujours dans la république ñu dem porter plainte contre état du Sénégal deuxièmement bi ma doon wax sànq euh, te jotuma ko àggale Euh, man maa ngi jóge côté tubaab Dialaw di ñëw fii bi may ñëw ci émission bi j'ai vu un jalonnement des gendarmes ci tali bi bu ngeen xoolee bu baax bu ngeen génnee tey tey tey da ngeen xool tali bi bu baax jalonnement yi euh, rond-point yi artères yu mag yi gendarmerie taxaw fa comme tenue yi ñu daan taxawee léegi bi may ñëw une réflexion mais euh, benn réflexion dugg ma ma ni président Macky Sall moom de. est-ce du kon lii la bëgg lan la bëgg mooy jël benn décision boo xam ni moom leer na ko ni tegu ko fenn génne gendarmerie pour ñun ñu def erreur génn ñu jàmbaarloo est-ce que du moom président par le jalonnement moom pare na pour jàmbaarloo ñun avec de conséquences que bu ñu jàmbaar rek moom armée bi ñëw jël <laughs> pouvoir bi ñun ñëpp ñu ànd ceeg yam moo tax may ñaan sama mbokku opposants yi la réponse à Macky Sall au président Macky Sall ak li mu jël nii ce n'est pas une réponse violente mais c'est une réponse pacifique à travers quoi waaw même ma ñëw waaw même ma ñëw il faut que ñu réussir ce qu'on appelle le pari de la mobilisation euh, d'une opposition organique unie ñu def ce qu'on appelle des contest contestations pacifiques soit ça peut passer par des désobéissances civiles ça peut passer par des marches comme ça peut passer aussi par des grèves c'est-à-dire que président Macky li mu teg nii daf ñoo bëgg woo ci xeex hmm. te boo maytul te gumba nee nañ bu lay woowee sànni sànnante xeer am na lu mu téye te mën na am bu ñu xeexee ñun yëpp fekk perte ci hmm. bu ñu xeex ak moom ci tali bi mais mën nañu paralyser dëkk bi en travers ce qu'on appelle les euh, euh, disons les contestations pacifiques jarul xeex jarul xuloo hmm. parce que on peut paralyser ce pays là tout en étant pacifique mais ci biir loolu Habib dafa wax leen ni ne ñu fexe ñu génne Ousmane génnee Jomaay su hmm. yi jëfee li mu jëf tey démb ci guddi la ko waxoon. ñu fexe wax ko gune yi hmm. bis bu Macky defee lii wàcc leen jëli génne Ousmane Sonko fa mu ne. Hmm. ak Jomaay fa mu ne. non non non man d' accord mag Habib pour man c' est l' erreur qu' il faut qu' ne faut pas appeler président Macky Sall à une forme de violence physique on peut exercer une violence pacifique avec lui en paralysant ce pays là parce que ce pays là. est un enjeu stratégique. buñ ko paree pour le Sénégal pour kan moo koy yëg. voilà très bien ku koy yëg. voilà et en, en ce moment c'est la meilleure manière pour pour d'après ce que je pense. Mm. c'est la meilleure manière pour nous de faire face au président Macky Sall sinon bu ko affronter comme ni fi doon amaat l'opposition risque gros parce que le pouvoir même peut basculer des mains des civils vers les mains des militaires et donc. on peut paralyser ce pays là. kon ci biir opposition on parle pas le même langage civile. voilà Quand voilà on mais mais je peux comprendre que c'est une décision à chaud. Mm. les gens et mais pour man il faudra beaucoup plus de stratégie euh, l'erreur stratégique que l'opposition pourrait faire euh, c'est des, des affrontements avec Macky Sall et son régime euh, dans la rue il faudrait la faire de manière pacifique on a les moyens de grève on a voilà on des moyens de désobéissance civique mm. euh, on a des moyens de marche on ne des moyens de contestation mais pacifique tëggum bool mi sax bu ci laajee ñu génnewaat tëggum bool bi. Hmm. voilà parce que pour man euh, c' est des formes de lutte ak Macky Sall dépassé nañ fu ñuy toogee. yow pour yow li nga wax ni wax ko ni. Euh, euh, ñu euh, ni nga xamee président Macky Sall yaa ngi ñoo defar portrait. waaw pour yow lii dina ko tax dina ko yëngal boobu mais d' ailleurs et d' et d' ailleurs est la forme de pression. moo taxoon deful troisième mandat parce que ñun bu ñu defee pression boobu au niveau interne la communauté internationale la ci dina ci dugal loxoom et les amis du Sénégal nañ ci dugal loxoom. tey jii tey jii tëgg ak a bari. waaw très bien et day jii day jii bul xeeb bul xeeb disons les contestations pacifiques. Macky Sall li ko renoncé loo kon bi ce sont les contestations passives. demul troisième mandat mais mais ci lii ñu jëm nii xamuñu kañ lay jeex. waaw très bien moo tax nag léegi bu ñu bu ñu defee li ñuy def nii bu ñu defee li ñuy def nii danañu lay tubalu ñu firi hmm. waaw bu ñu defee lu ñuy def nii voilà bu ñu defee lu ñuy def nii danañu léegi parce que dañu am benn enjeu et d'ailleurs foofu sax lay woowee opposition bi à partir de vingt cinq février nañu teg suñu gouvernement parallèle. ah oui maanaam loolu la Macky waxoon en 2011. mi ngi naan à vingt cinq février nañu teg suñu gouvernement parallèle engagé ak président Macky Sall. dans une forme de contestation pacifique. boobu gouvernement parallèle nu muy demee ak kan moo koy kan moo koy jiite. vous avez vingt candidats non les vingt candidats. nañu waxtaan seen biir. ñu monter ñoom. parce que ñoom ñooy candidats yi. ñoom ñooy les principaux acteurs ci fi ñu jëm nii les principaux acteurs ñoom les vingt candidats nañu gisee ñu tëgg ñoom seen biir un gouvernement parallèle. jiital benn président jiital kenn ñu commencé mener la la la la la bataille pacifique contre Macky Sall. waaw buy jar 3 mois dina ko jar buy jar 6 mois dina ko jar mais c' par la bataille pacifique qu' on aura gain de cause. xam génnee xeex ak moom ñàkk na. je malheureusement des pays qui sont juste à côté de chez dugg nañ ci ay crise yoo xamante ni benn étincelle bu ndaw moo ko déclenché ñu xeeb ko mais xam fan lu mujj. waaye euh, la Côte d'Ivoire teg nañ seen i ay loi def nañ seen i mbir écarté nañ ñii ci élection duggal nañ ci ñi ay élection ñu nekk sur une crise politique ba def si guerre. Mm-hmm. bi may nekk xale boobu suma yaay mu ngi cuub mu yónni ma jour boobu laa dégg nii def nañ coup d'état Robert Gueye ñëw na te personne ne le souhaite ñun xalaat loolu ci suñu ay réew eh, du loolu laa ni mën na nekk wala mënta nekk du dëgg mm. mais tey tous les prémices d'une crise politique sont là tous les prémices sont là at yi at yi ñu wees yëpp ci ay crise politique lañ nekk on a eu des on a eu des yoo xam xamante ni sont perdu la vie d'autres sont en prison des familles disloquées est-ce que on continuer sur semaine même bi nga xamante ni lii de am na tey xamuñu fuñ jëm xamuñu ci lan lañ nekk au contraire Macky en prenant prenant cette décision il est en train